salaamaaleykum gars yi kii di Alima Ganji ñu koy wax Marème série maîtresse bopp bi dem na defoon naa bi vidéo ne leen da saaga maam Cheikh Ibrahima Fall ngeen ne ma danoo piraté kontam def na live nag léegi yéen ñëpp xam ngeen ne kenn piratul kontam mi ngi ko d'Ivoire ay mbokkam ñoo ko war a jege ñu dimbali ko problème bi du dara yéen ñi comprendre lu nu dafa am dépression dépression viol dañ koo violé woon seen membre de sa famille nijaayam la wala rakku papaam rek moo ko violé woon ba muy nekk booy viol boobu bu ko xalaatee moo ko indi dépression ki ko violé woon nag dafa bëgg a ñamaat ñeneen ci seen membre de famille léegi nag affaire u jaxase deret yooyu noonu daal comprendre nga waaw loolu moo koy moo ko dépression waa joxuma kan la dañ ko war a jàpp Marème Alima Gànji soxla na ndimbal ay waay Alima Gànji soxla na ndimbal mi ngi dof boobaa ngay dem dimbali leen ko